asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk ñu dalal leen beneen yoon fii si Paradise TV ñu fas yéene andi leen xibaar yi si kàllaama uh, wolof ngeen àndal seek seen mbokk Aliou Fall mbokk yi gannaaw nuyoo bi rek uh, ñu indil leen lii di boppi xibaar yi. député continué nañ di waxtaan si uh, budget 2019 si loolu sax ñu ngi xoolaale yeneen place yi ministère yi. ay millions si ay dollars wax nañ ne sàcc nañ leen si Liberia gannaaw bi ñu amee jafe-jafe si tàggat yaram Ivory Coast kontaanuñ loo xam ne nag Africa Cup of Nations 2021 dinañ ko yóbbu Cameroon si xibaari bitim réew juróomi soldaari géej yu Amérique si jamono bi gisuñ leen gannaaw bi plane ak lii di jet fighter laalante. kay gannaaw boppi xibaar yi rek ah, ñu ànd ak yéen lii di ah, si yaatal gi ah, ñu dooree ko ak xibaar es bu fa xam ne rek ruus na fi rek mooy xibaar boo xam ne mu ngi bàyyi ko si kuréel bi ñoo food safety and quality authority ñoom daal mooy kuréel buy seetu wàllum lekka euh, lekka yi si biir réew mi ñoom daal si jamono bi euh, bàyyi nañ euh, lii di best company mooy mooy company boobu noonu ñi dee jaay ndox ñu ne nag si jamono bi daal ñoom mun nañoo commencé di jaay seeni ndox si réew mi lii nag li ko waral mooy lii wax nañ ne lii di company bi ñooy Sunshine Industries ñoom ñooy kuréel boo xam ne ñoom ñoo dee defar lii di ndox bi ñoom nag def nañ ay coppite yoo xam ne nag seen doxalin moon na euh, def nañ lu ne loo xam ne nag euh, pour gis ne ndox bi set na te nag euh, lii tax na ba ñii di kuréel boo xam ne nag ñooy saytu wàllum lii di lekk fii si réew mi wax nañ ne nag lii ne ndox bi daal jamono bi léegi baax na ne mun nañ koo dugalaat si marché bi nit di ko jëfandikoo loo xam ne nag li li taxoon sade ñu téye ndox bi mooy couleur bi nag moo sa moo wécceeku woon te tax na sade lii li ñu ooye ayoon moom mooy loo xam ne nag mu ngi mel ni lu xomaat moom moo nekkoon ci seen pipe yi euh, waaye nag euh, wax nañ ne si euh, jamono bi daal loolu nekk na mbir boo xam ne daal dox nañ si ba léegi mun nañu continuer di doxal di di ndox bi di si njëriñoo kon nag mu ngi mel ni daal Best Water si jamono bi delluwaat na ci marché bi. Euh, ñu continuer yéen si xibaar yi euh, ñu dooree ko rek ak ab jotaay boo xam ne nag euh, mu ngi xew Felice University of the Gambia mooy xale yoo xam ne nag ñoom ñooy yëngu si wàllum tas xibaar si université bi nag am nañ jotaay boo xam ne nag jotaay bi nag jotaay lii di colin la lii di taar ak ni ñooy bindee si wàllum lii di netaal li nag mu ngi xew si alxamis bi ca University of the Gambia jotaay gi nag dalal na ñaari taskati xibaar yu ñu ràññee fële ca United Kingdom te nag euh, ñu euh, indi lii rek mooy euh, kuréel boo xam ne nag moom mooy saytu ñooy xale yoo xam ne ñoom jàng wàllum tas xibaar ca University of the Gambia ñu ànd si seen i naataango yu ñoo ooyee Façon for Africa bi muy njëlbeen yoon façon bi am mu bokk si jéego yi nga xamante ne nii kuléere nag taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk si béréb bi jàngeekaay bu gën a kawe fii si biir réew mi ñu ngi koo def pour dooleel wàllum nag façon ak taar si seen liggéey fii si biir réew mi Anna Ndiaye moom mooy CEO bu Fashion for Africa wax na ne kuréel bi nag lu ko tax a jóg mooy nag euh, raaye biir ndaw ñi nga xamante ne ñoo war a nekk kilifa ëllëg économiste bu gën a ràññee si moom la si wàllum aada mu teg ci ne daal ñaari kenn mënu a xaaj Kosa Osaay Yaaw moom nag international photographe di nataalkat bu bu ñu ràññee moom tamit ñaax na daal ndaw yi pour nag ñu jël métier bi faydal ko fulal ko boole ko nag ak. waane ak xalaatin yi nga xamante ne nii mun naa gën a yóbbu seen liggéey ci kanam Fashion for Africa Foundation project bi nag doon liggéey bi nga xamante ne lu ko tax a jóg mooy dekkilaat waaye tamit réel yaakaar ak nag mbéppit yi nga xamante ne nii moom la ndaw yi am ëllëg ci wàllum nag euh, safaar fii ci biir réew mi ak nag bitim réew. Euh, waxtaan yi mu ngi continuer euh, fële ca néegi député yi euh, gannaaw bu ñu nekkee di càmbar lii di budget boo xam ne nag mooy budget yi 2019 lii nag di ministre boo xam ne nag mooy seetu wàllum koom bi si réew mi moom moo ko fa indi te nag ministre bi moom wax na ne nag mu ngi def ay jéego yoo xam ne nag dina tax ba réew mi am si am denc xaalis bu bari lu toll si benn billion lii nag gannaaw bi mu doon gaarale ay kàddu ministre bi nag wax na ne soo seetee liñ yaakaar si koom-koom si atum 2019 dina dem ba ñaar fukk ak juróomi billion ak ñaar fukk ak juróom-ñetti million si ay dalasi lii nag soo ko soo ko xaymaay mu ngi mel ni daal euh, ñaar fukk ak juróomi euh, yoon wala téeméer bu ne ñaar fukk ak juróomi euh, juróom ñaari yoon am nañ ci yokkute soo ko tollalee ak atum 2019. gestuwaat dépense yi at bi nga xam ne moom leen dégmal bi nga xam ne National Assembly member yi ñu ngi ko def foofule sa néegi député yi nekk Banjul ni ki tey amaatoon nañ fa benn waxtaan bi nga xam ne ay kàddu yu bari jóg na fa ni ki tey nag ñu ngi doon seetu dépense bi nga xam ne ministre bi nga xam ne xoolaat dépense yi at bi nga xam ne leen dégmal bi nga xam ne député yi ñu ngi ko def foofule sa National Assembly House bi nekk Banjul ni ki tey nag amaat nañ fa beneen waxtaan waxtaani tey bi nag ñu jëmale ko si ñaari bunta si nguur bi ni ki mel ni bunta bi nga xam ne ñooy seetu wàllum ndaw ak tàggat yaram ak bunta bi nga xam ne mooy seetu wàllum bu ñëwee si wàllum bunta bi nga xam ne mooy seetu wàllum ndaw ak tàggat yaram ki nga xam ne national assembly member bu Lowa Badibou di Alaaji Jawara moom nag wax na ne ministre bi maanaam bunta bi nga xam ne moo amee wàllum kom koom te binda dépense bii nii war nañoo gën a ciral ñi nga xam ne ñooy ndaw yi yokk seen dépense bi ba nga xam ne leen dooleel ki nga xam tam mooy national assembly assembly member bu Kombo South di Kebake Baro moom wax na ne xaalis bi nga xam ne binda nañ ko pour jënd bagage ci office dañ ko war a génnee jël xaalis boobu dugal ko li nga xam ne dafa njëriñ jigéen yi ak ndawi réew mi bu ñëwee nag ci bunt bi nga xam ne mooy seetu wàllum jàng député yi wax ne na ki nga xam ne mooy ministre bu finance muy Mambouri Ndiaye ne war na moo yokka xaalis bi nga xam ne jox nañ ko bunta boobule ngir ñoom tam ñu mun a dooleel ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi xibaar bi nag mu ngi feeñal ne seen waxtaan bi dina continuer ni ki ëllëg ñu continuer yéen si xibaar yi rek euh, bi yoon ñu seetal leen fële euh, euh, ci Liberia si capital bi Monrovia foo xam ne nag wax nañ ne lu ni waa réew mi li ñooy sàcca si courant soo ko xaymaa at bu nekk dem na ba si téeméer bu ne juróom-benn fukk lii nag li ko waral rek mooy nit ñi dañooy jël courant yóbbu ko seen i kër yi ak fi ñooy liggéeyee te nag duñ ci jaar ak yoon lii nag mu ngi mel ni compagnie bi nag génne nañ di wone ne tax na sax ba ñoom li ñoo yàq li ñoo xaalis dem na ba euh, fanweer ak juróomi million euh, si xaalis si euro ni euh, nag ñi ko wax rek mooy kuréel buy seeti wàllum courant si réew mi ñu xam leen si Electricity Corporation dafa mel ni lii daal sàcc la ci koppar yi nga xamante ne ni moom lañ jël euh, dugal ko nag ci yokkum euh, soplaayum courant lii lañ wax Libéria ñu ngi def seen kimtalaay kàttan daal pour nag tabaxaat seen nag bunti courant bi te soo xoolee nag li ko yaaxoon ci gannaaw mooy xeex bi nga xamante ne moom lañ amaloon ñoomi neen xeex bi nga xamante ne sax mu ngi tàmbali woon atum 1989 dem bi atum 2003 wax nañu US uh, dina rew nyunglena ñu ngi leen a jàppale ci wàllum koppar di leen jàppale tamit ci wàllum technical uh, pour nak West African state bi di Liberia ñu York bu baax a baax daal ci wàllum kurang te wax nañ bokk na si nak ci pexe bi nga xamante ne moom lañ ñu gën ko ci Power Africa Initiative bi ngénte woon ko nak di ki nekkoon president bu Amerika Barack Obama pour mu indi daal kurang jaglal ko lu war a yemoo ko juróom fukki millions nit yi nekk nak ci réew woowule dembe atum 2020 waaye wax nañ nak ben mandarga amut ne nag nguur gi am na yite beeg yéene bi pour gis ne lii mu am power sector bi mooy bunte courant beeg énergie bi su lu bañ a ah, kuréel buñ sos pour muy xeex ah, lii di ah, njublan ñu xam ko si IC ICPC démb nag wax nañ ne pour xeex lii di njublan si biir réew mi du am benn solo foog ñu boole si lii di ndaw yi bim nan gaaral kàddam naka si inauguration beek deekalaati naka student anti corruption club bi taalibe yi naka seen club bu ñu taxawal pour ñu xeex wàllum juuñ njaaj ca béré bi jàngeekaay wu nekk sa Lagos State nekk naka seen South West zonal commissioner bi di Mr Sintema Binga wax na ne ICP naka ñu ngi sóoraale pour nag ndaw ñi euh, ñi nga xamante ne dinañ am nag wàll bu rëy ci xeexum nag wàllum juuñ jaaj euh, waaye tamit ci seen béréb bi jàngeekaay yi surtout secondary school system bi te foofu noonu nag ñu bari ci Nigeria ni seen ndaw ñi fa lañ nekk mu ne ndaw ñi nag soxla nañ bu baax a baax daal énergie bi waaye tamit soxla nañ jël ay matuwaay xar seen tànki tubéy pour xeex njuuñ njaaj ak bépp xeetu njuuñ njaaj ekkati seen kàddu pour xeex nunu mel li nga xamante ni nag moom mooy inauguration beeg dekkilaati li nga xamante ne ni moom mooy comité bu ñu pour xeex wàllum njuuñ njaaj tàmbali na nag te nag jéego bu rëy la bi nga xamante ne ni jël nañ ko ak nag likkaloo bu ñu am ak bérébi jàngeekaay beeg commission bi pour nag anti corruption clubs yi lee ñu nag dox dañ soxla ñi nga xamante ne nii dañ ci amuwaale bokk na si nag ministre bu yore wàllum njàngameeg njàngale mi ak nag wàllum nag jàngum digg doom ya tuur tànk yi dem bi sax bérébi jàngeekaay ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko yore jiite ko dem bi si principal yeeg ticca yeeg waajur yi ñëpp am nañu wàll ci mbir mi pour nag li nga xamante ne nii moom mooy wàllum juuj njaaj euh, pour gis na tamit clubs yi nii yi jóg pour xeex wàllum juuj njaaj seen bébét mun a antu ki nga xamante ne nii moom mooy Bingi moom nag moo fa teewaloon acting chairman bu ICPC si dàkkental muy wuyoo si docteur Moussa Aboubacar wax na ne nag njuuj njaaj de problème bu rëy la problème bi nga xamante ne ni daal wan ñëpp a ko war a xeex te looloo waral nag ñu taxawal kuréel wii nii pour nag ñu xeex ko waaye tamit rek bamax ko ICP nag di kuréel gi ngénte nañ ko ñaar fukki fan ak juróom-ñeent si weeru septembre atum 2000 lañ ko nag ngénte woon si njëlbeen. dinañ ànd ak bàkk bi su ñëwee rek seetal leen lii di xibaar yi njula gi Euh, mbokk yi ñu ñëwaat rek si seen euh, xibaar yi comme ni ñu ko waxee rek ñu seddal leen euh, lii di xibaar yi njula gi lii di benn si compagnie yu gën si réew mi ñu yëngu si wàllum sampa ñu xam ko si TAF Africa Global moom nag ànd ak foundation bi ñëw ay TAF Foundation indi nañ loo xam ne nag pour jàppale ndaw yoo xam ne nag ñu ngay yëngu si wàllum business lii nag mbir la boo xam ne nag dañ ko indi pour ndaw yi ñoo xam ne nag am na xalaat am nañ xalaat boo xam ne nag xalaat bu baax la pour yëngu si wàllum business nag dina la loo xam ne nag di nga dooree sa business lu toll si jun eh, benn million si dalasi bari na ndaw yu nekk ci biir réew mi te jàpp ñuy si dara tax na yenn ni bànqaas yu nekk ci biir réew mi ñu ngi see jël ay jéego kuréel bii ñu naan TAF Africa Global ñoom naka ñoo taxawal ab mbootaay pour naka gëstu xale yi dimbale leen ci wàllum jula ak tamit won leen yan jéego la ñu mën a jël ak tamit su koy mën a doxalee loolu naka tax na ñu dugal ci benn million ci xaalisi dalasi Ousseynou Socé mi nga xam ne mooy regional director ci kuréel bii ñu naan TAF moom naka wax na ne programme bi dafa ñu ko lekk pour dimbale leen ci wàllu koppar waaye tamit dimbale leen ci anam yu bari si at yu ñu paase ndaw yi nekk di am liggéey ci biir réew mi mu ngi yokk waaye naka ci weeru février atub 2018 muy seen ñaareelu yoon màggal li ñu naan Youth Entrepreneurship Summit ñu taxawal ko naka pour dimbale ndaw yi nga xam ne ñu ngi am xelaat pour def business ak tamit ñu amee ko ci place yu naat ndaje bi naka boole na ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc si wàllu business ak ñoo xam ne dañu yàgg ci business ak tamit ñi nga xam ne ñu ngi am aim taxawal li nga xam ne mooy seen business yi bopp. Euh, wàllum koom-koom euh, ci euh, Africa mooy ndaw yi pour ñu am yoon pour am koom-koom ak lii di Euh, lii di yëfi mbéy mi ak euh, pour gone yi euh, wala xale yi dugal si wàllum business nekk na mbir moo xam ne nag ñu bari duñ dee am di dina naa jàppale li sa tax lii nag mu ngi xew gannaaw jotaay boobu bi ñu ooyee EU Africa Union Summit xewoon na fële ca Abidjan lii nag mbir la boo xam ne affaire yi koom si wàllum agriculture nekk na mbir bi nag nguur yi yëpp gis nañ ne liñ war a dooleel la ak naka lañ naa jàppale pour ñu am lii di xaalis nangutoo bii nga xam ne nag uh, am nañ ko foofule sa EU Africa Business Summit meeting la woon bii nga xam ne lu moo gestu moo nekk wàllum jënd ak jaay si biir Afrique mu amoon foofu foofule sa Marrakech nangutoo yi nga xam ne amoon nañ ko fa bari na torop lii nga xam ne tam moo nekk ñàkk liggéey bi nga xam ne mu ngi bari si biir tund Afrique nekk na loo xam ne waxtaanee nañ ko fa xibaar yi feeñal na ne nag lu toll si juróom-ñetti millions yi ndaw nekk fii nii si biir réew mi amuñ ay liggéey. ba tey xibaar baa ngi dellu di eh, feeñal ne lu bugg a toll si fukk ak ñaari millions yi ndaw nekk fii nii si biir tundu Afrique ñoo nekk di am ay jafe-jafe pour dugga si marché bi nga xam ne liggéey la ñu fay la moo fa am lii nag ñu ko feeñal ñoo nekk World Bank gannaaw bi nga xamee ne am na gëstu boo xam ne amoon nañ ko. ñoom nag ñu ngi wax ne naka la gay xamee ne am na ay jafe-jafe yu am moo nekk pi xibaar bi feeñalee ne lu toll si eh, juróom-ñetti ndaw nekk neen ñoo xam ne liggéey yomb leen si loolu nag xibaar baa ngi feeñalaat ne lu toll si ñetti millions yi liggéey rek moo dee am si biir tundu Afrique at bu nekk. dinañ ànd ak yëgle rek su ñëwee seetal leen xibaar yi tàggat ak bitim your smile. Take it with you, wherever you go. Wear it. Share it. To welcome old friends or meet new ones. Brussels Airlines, we go the extra smile. cuune bakka culaas di programme yi jongante dam bi leen Paradise TV indil juróom-ñetti bawda rek leen soxla si ñeneenti gox yi di Banjul KMC Sukuta ak Brikama ñi bàyyeekoo ci campé grand place yi ak vuu yi ngir ñu tànne si juróomi gox yi kan moo si doon seen bawda ku bëgg a bokk ci pox mi koolal 313 8070 wala 2092 110 Paradise TV ak cuune bakka gannaaw euh, lii di euh, yëgle yëbaane rek ñu seetal leen euh, lii di xibaar yi tàggat yaram ñuy saytu wàllum football mooy kuréel bu ngànk wàllum football ci Ivory Coast ñu xam leen si Ivorian Football Federation ñoom daal ah, bañ nañ ne ñoom wala seen guur gi ah, kenn si ñoom yëgut ne ah, lii di Confederation of African Football mooy kaaf ñoom nag toxal nañ loo xam ne nag mooy Africa Cup of Nations bi war a xew si réew mi si atum 2021 ñoom nag fédération bu Ivory Coast ñoom daal wax nañ gannaaw bii di président bu CAF di Ahmad gannaaw bi ñu doon waxtaan ak Media TV Afrique Media TV si londi gi Ahmad daal wax na ne Cameroon nag jël nañ Euh, lii di euh, pour ñeeg ñu euh, Cup of Nations bu mu xew si réew moom waaye nag dinañ leen jox 2021 den ñii di lii di Côte d'Ivoire wala Ivory Coast ñoom ñu jox leen 2023. leeta bu bàyyeekoo si Ahmad jëmale ko si Cameroon seen président bi Paul Biya mu bindoon naka bataaxel bi fanweeri fan si weeru novembre atum 2018 gis ko nag di BBC Sports. moo nag euh, fës ca gannaaw bi nga xamante ne Ahmed nag gannaaw bi nga xamante ne ah, Ahmed euh, dalaloon na nag Cameroun pour nag ñu host 2021 Nation Cup bi donte nag loolu am na fii FIFA firndeel nañ ab bataaxel niki talaata di fën firndeel na bina nañ kaa faat di fàttaleel bunta bi ne jéego yi nga xamante ne leen jël atum 2014 te wax nañ ne nag fédération bi ñoom nag dañ xàlli yoon si doxalin yi lee kaaf mi nga xamante ne ba léegi mu ngee nag seet dëkk bi nga xamante ne ñoom ñooy jaati naka 2019 nation cup bi ba pare wax nañu nag defanguñ nag benn official statement mu di maanaam génnewuñ benn bataaxel jëmale ko nag si coppite yi nga xamante ne nii wala wéccee ko yiñ lal te nag kàngaam nag xamal nañ BBC ne na nag président bi rek di Ahmed euh, wala nag general secretary bi di am Fahmy ñoom ñoo mën a nag déggal xibaar bi leen Guinée mi nga xamante ne nii nag joxoon nañ leen euh, li nga xamante ne ni moom mooy droit bi pour ñu xoos ko 2023 wax nañ ne nag ñu ne léegi ñu ne léegi tamit nag euh, coppite bi nag dinañ leen laal Guinée wax nañ ne nag ñoom mosuñoo xoos li nga xamante ne ni moom mooy jongante bi waaye nag gudd digge nañ ne dinañ jëfandikoo Conakry kankaan labe ak nag Zéro Koré mu doon palaas yi nga xamante ne nag fa la ñoo defee jongante yi leen fu mu nekk ni nag Egyptian Football Association di bunta bi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk doxalin ak terrain ni football ca Egypte ñoom nag ruul nañ seen boppa out mu di maanaam génne nañ seen boppa si réew yi nga xamante ne nii ñoom ñooy ut nag 2019 Africa ah, beneen réew yi arabique BBC Sports xam nañ ne tamit Morocco ñoom nag jëloon nañ ay matuwaay pour ñàkk ñu am li nga xamante ne moom mooy at bi African Nation Championship ñu gën ko ràññee si caan gannaaw bi Kenya nag waxee ne ñoom parewuñ ba pare pare South Africa ñoom tamit fu mu nekk nii ñu ngee sóoraale pour nag euh, nekk réew bi nga xamante ne nii ñoom ñuy host jongante bi le waaw benn ñu ngi ànd ak yéen fii si Paradise TV comme ni ñu ko waxee rek ñu continuer rek si xibaar yi tàggat yaram bi ay kuréel euh, bi di fële ca euh, Britain mooy euh, ñuy kuréel yoo xam ne nag ñoom ñooy yëngu si wàllum gambling ñoom daal nangutoo nañ ne nag d' accord nañ ne ñi dinañ génn yëg yëg yëgle yoo xam ne nag ñu ngi ko def si télévision yi lii nag kuréel bi ñu Remote Gambling Association RGA ñoo xam ne nag bokk na si di Bet365 Ladbrokes ak Paddy Power ñoom daal ah, def nañ nanguto boo xam ne nag dinañ génne loo xam ne nag mooy yëgle yi ñoo def si si si télévision ni ah, lii nag ah, mu ngi xew gannaaw bu ngeen ŋàññee mooy njiiti nag si réew yoo noonu bi leen ŋàññee ne lii di yëgle yoo xam ne nag si wàllum lii di gambling dafa bari torop si télévision ni li ëppa juróom-ñeenti minute yi nga xamante ne ay yëgle ka bataaxel lañ doon def nag yi nga xamante ne wane nañ ko jamono World Cup bi ah, waa tamit ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy nag anti gambulin campagne si ñi nga xamante ne ñoom ñooy campagne pour na xeex wàllum karta wax nañ ne nag liñ dee jëfandikoo ci ay yëgleeg yëbaane yi nekk na li nga xamante ne dañ ko def rek pour régler li nga xamante ne moom mooy karta yi war nañu tamit ci tàng ak ragal mu ci yi nga xamante ne ni mun naa sabab yokkute bu am ci problème yi nga xamante ne ñu ngi ko am ci wàllum karta ak nag Gambling Commission bi nga xamante ne moom mooy saytu wàllum karta joxe nañ ay report wala ab bataaxel di firndeel ne lu wara a yemoo ñeenti téeméeri junni ak fanweer ci ay Briton dañu ñoom lañu misaal ne te nag ñu ngi am ab ndimbal. pour nag fuel mu di maanaam yokka bu baax a baax under age gambling mu di maanaam yokka ndaw yi nga xamante ne ñoom ñooy karta te nag mutuñ at bi pour du def nu mel jéego yi nag wax nañ ne nekk na jéego yi nga xamante ne moom la lébu paata bi tamit lal te wax nañ ne am na solo lool bokk na si géem bu munta doon pour nag ñu tàmbali bu baax a baax daal euh, ñu fay daal bu baax a baax waxtu bu moo tàmbali balaa nag mbir mi di law wax nañ ne wàllum nag horse race di jonganteeg fas yi loolu tam jëlee nañ ko exemple jëlee nañ ko nag misaal euh, def ci nag ay nganta yi nga xamante ne nii lal nañ ko si soo xoolee nag commercial importance yi nga xamante ne ñu ngi ci rax mu di maanaam njëriñ yi nga xamante ne ñoo ci rax si wàllum nag liggéey bi jëmale ko nag ci li nga xamante ne ni moom mooy karta ak nag waxtu yi nga xamante ne ak diir yuñ ci lal yeneen jongante tàggat yaram yi nga xamante ne moom lañ ci boole tamit firndeel nañ ne nunu mel lañ ci rax ci wàllum matuwaay yuñ jël pour gis ne daal mbir mi jaar yoon ak loolu noonu ni wax nañ ne nag impact bi nga xamante ne ni moom la am ci football mu di maanaam jéego yi am ci football yooyu tamit wax nañ ne euh, dañ ko nag bànnoon te wax nañ ne loolu yëg-yëg bu rëy la surtout wàllum nag koppar yi nga xamante ne ni ñoom ñoo dee dugg ci wàllum tàggat yaram bàyyeekoo nag ca Gambling Company Chile ak broadcast si mu di maanaam koppar di jóge si Gambleen compagnie compagnie carte yi le ak télé yi nga xamante ne tamit ñoom ñoo dee fay xaalis pour génne jongante yi le lu jegeñ téeméer bu nekk juróom-benni fukki clubs ca Angleterre ak naka seen ñaari division yu mag yi la ñoom ñoo ñoom ñoo am Gamble company si nag seen star sponsorship bi mu di maanaam téeméer bu nekk lu war a lu jegeñ ca juróom-benn euh, juróom-benni fukka si clubs si nekk Angleterre seen nag ñaari division yu mag yi soo xoolee seen clubs si yëpp ay nag euh, euh, am nañ li nga xamante am nañ compagnie compagnie carte yi nga xamante ne ñoom ñoo leen dee dooleel. wax nañ ne nag li nga xamante ne nii moom mooy mujjantele nag ndar keppal bu ñu war a jël ci wàllum matuwaay yi la dañ ko soxla bu baax a baax li war a bàyyeekoo si kuréel bi nga xamante ne nii ñoom ñoo ŋànk wàllum nag karta balaa nag ñuy jël ay daan di ko nag taxawal. te wax nañ ne nag fu mu nekk ne ñu ngi ci liggéey suñ sukkandikoo si kàddu yi nga xamante ne moom lañ jàppee ci kenn ku nekk ci biir ah, industrie bi te wax nañ ne nag loolu dina ñëw ci at bi wala balaa atum 2019 su lu bañ a yàgg ñu ak yëgle su rek leen xibaari bitim Your smile. Take it with you wherever you go. Wear it. Share it. To welcome old friends. or meet new ones. Brussels Airlines, we go kay leen ñu jokkoo ci social media bi ngeen wécceek ñun seeni xalaat ci Facebook PTV Gambia Instagram PTV Gambia Twitter PTV Gambia YouTube PTV Gambia mën ngeen a download app bi jaaree ko ci Google Play Store am ko ci seeni mobile PTV ñooy ceeñeeri Gambia. ñu bismillah rek beneen yoon euh, mbokk yi ñu continuer yéen si xibaar yi bi yoon ñu indi leen euh, xibaar yi euh, bitim réew kii di doom yi koo xam ne rek moom moo sos kuréel bi ñu ooye lii di Huawei moom nag téye nañ ko fële ca Canada te nag mu ngi mel ni dinañ ko delloo fële ca United States Meng Wanzhou koo xam ne nag moom moo amee wàllum koom-koom bi si compagnie bi te nag moom moo toppa si njiit gi moom nag téye woon na ko téye nañ ko fële ca Vancouver si benn fan si weeri décembre. yatal yi nga xamante ne mu ngi aju ci wàllum aresam wax nañ ne nag release suñ ko mu di maanaam fësaluñ ko waaye nag Amérique wax nañ ne ñu ngi gestu Hawaii jëmale ko nag si euh, violations yi nga xamante ne mu di maanaam euh, si jéggi daw nga xamante ne ni am na jëmale ko si sanctions yu ñu jël teg ko ci kaw Iran Chinese yi nag seen embassy bu nekk ca Canada ñaxtu nañ arrest bi waaye tamit ñaax nañ euh, sàkku nañ tamit pour ñu bàyyi ko Hawaii wax nañ ne jot nañ xibaar jëmale ko si charges yi te nag ñoom yëguñu woon ne Miss Meng dafa def naka su du noonu ares bi mu ngi ñëw gannaaw bi nga xamante ne ni waxtaan bu doy waar amoon na nag pour diggante Amérique ak nag China ñaari réew yi nii amaloon nañ nag fitna bu rëy fitna bii nag mu ngi aju ci wàllum jënd ak jaay wàllum business ku nekk di jël ay tarif yu jéggi dayoo di ko teg sa morom ay bagaasam ak ay marchandise ba léegi nag ares bi ñu ne nag du dimbale juróom-ñeenti fanum nag tros bi nga xamante ne ni mu di maanaam juróom fukki fan nangutoo bi nga xamante ne ni réew yi amaloon nañ ko di mu di China ak Amérique bu doxoon diggante président Donald Trump ak China seen président bi Xi Jinping gannaaw bu ñu daje woon naka si réew yu mag yi am doole ci wàllum koom ndaje bu ñu amaloon sa réew Argentina ñu gën ko ràññee G20 summit loolu tamit mu ngi lëkkaloo woon wala daje woon sax ak jéego yi nga xamante ne nii ak nganta yi nga xamante ne lañ jëloon jëfandikoo ko ci kaw Hawaii seen technologie bu nekk sa western countries yi mu di réew yi nag tubaab yi leen. war nañ ne Amérique Australie ak New Zealand ñoom nag dagaloon nañ. wala sax blokoon nañ jëfandikoo nag Chinese farm equipment yi le mu di bagage si Chinese yi le jëfandikoo ko pour nag ñu gën a gaawal seen nag 5G mobile networks yi le Canada seen ministre bu yore wàllum yoon confirm nañ muy maanaam dëggal nañ bés beeg place bi bu Miss Meng arresam bi mu di maanaam bés beeg place bi ñu ko jàppee ñu teg si ne ne nag ñu ngee gestu pour ñu extradite ko jëlee ko ca réewu Amérique ñu ne nag euh, béel ko euh, te loolu nag wax nañ ne pare nañ pour def nu nu mel niki àjjuma. juróomi soldaar yi géej euh, yu euh, Amérique euh, si jamono bi daal riir nañ gisuñ leen lii nag mu ngi xew gannaaw bi seen ñaari plane mbukkante si jaww ji te daanu si biir géej bi ci sa Japan si alxamis bi Japan nag ak Amérique seen kilifa wax nañ ne ñu ngi def ay jéego bu gis ne ñu gis ñii ni ñu xam ne nag seen plane yi ñoo mbukkante fële fi ñu ooyee Hiroshima réewum Japan seen bunt bi nga xam ne moo amee wàllum kaaraange niki alxamis nag wax nañ ne seen ay takkandeer gis neen lu toll si ñaari nit si juróom-ñaar yi nga xam ne ñoo nekkoon si plaine boobule gannaaw bi nga xamee ne xew-xew bi am na xibaar bi nag feeñal na ne kenn si gaay ñu ko doon gis mu ngi daloon foofule sa air station bu nekk foofule sa ni keneen ki nag gannaaw fukki waxtu bi nga xamee ne lii am na si leen ko soog a gis ñoom nag wax lii xew ñaari waxtu euh, si guddi euh, niki àllarba foofule nag seen taskati nguur bi moo ko moom euh, feeñal na ne lu toll si juróom benn hélicoptère ak ñetti gaala bokk neen si ñi nga xam ne ñoo nekk di wóor pour sowe ñee na ñi nga xam ne bokkoon neen si accident boobule. ki nga xam ne nag moo nekk ministre bu amee wàllum kaaraange di Takeshi Iwaya moom wax na ne réewum Japan ñu ngi liggéey ak ñi nga xam ne mooy réewum Amérique pour def ay gëstu ba xam lan moo tax accident bii nii mu am. lii lañ leen amaloon si xibaar yi waaye balaa ñu tàggatoo rek ñu jukkil leen lii di boppi xibaar yi. député continué nañ di waxtaan si euh, budget 2019 euh, si loolu c'est-à-dire ñu ngi xoolaale yeneen euh, place yi ministère yi ay million si ay dollar wax nañ ne sàcc nañ leen si Liberia gannaaw bi ñu amee jafe-jafe courant si tàggat yaram Ivory Coast kontaan nañu loo xam ne nag Africa Cup of Nations 2021 dinañ ko yóbbu Cameroon si xibaari bitim réew juróomi soldaari géej yu Amérique si jamono bi gisuñu leen gannaaw bi plane ak lii di jet fighter laalante. am mbégte si ànd bi ngeen ànd ak Paradise TV di leen dox di jaje suba incha allah bye bye.